sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatu muy nuyoo jullit ñi ah, di nuyoo bu nga xamante ne rek ñu ngi nuyu képp ku ñuy bàyyi xel ci addina wërngal képp nag di fekki nag ko xam ne rek yaa ngi toog sa saal di ñu seetaan jamono ji ne la jëb loxo suñu juróomi baaram di la nuyu comme ni ñu nuyoo buur di ñaanal jàmm salaam jiitu réew mi ak képp ku ne ci ginnaawam di ko jàppale ak ay soxnaam ñaanal tamit sunu njiitu kër gii di alhaji Mouhamed Dia di ñaanal madame ja ñoom it yàlla na seen jàmm yàgg ak ñi nekk ci kiw groupe yëpp entire team Wagan Show ñëpp ñu ngi leen di nuyu suñu caméraman yi suñu caméra woman yi ñi nekk technical room leen di sant di leen gërëm gestu sama ndaamal kajoor li ñu ngi baalu biraan ñeme kere salamaane biram caam kër nuyoo wi nuyoo bu amul àpp di la wàcce sa wàcc waay ah, séeri ki ne géey góoru xadi ñu ngi baaloo Ker ñang Baalo Birane Jama Ker ak Salamani Biram Sam Kër ma Diop Jama Ñaar. yi dama gaaw xam yow temps yi rek ñu bës la ñaan <laughs> eh. euh, ma bég waaye fi génn ak tey ni neex na ma trop ñaan def nga yu baax <laughs> sañsa nga macha allah yàlla laf cet ay ca di nuyu àdduna wërngal këpp ndax xam naa ne show bi ko ni di seetaane mhm. di leen wax ne ñu ngi leen di nuyuwaat fii QTV di Force Private TV indi Gambia di nuyu imam yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi jiital ci ak mbooleem imam bu nekk ci réew mi rawatina imam Thiam ba ca Neema mhm. suñu soppe boobu nga xam ne saa su ne di ko ñaanal jàmm ak salaam bu baax a baax a baax ñang ah, mbaalo tey nag foo ma ñëwal waaw tey balaa ñu dem foofu rek ma hmm. mastaw bu baax waa Basse eh, ah, li nga xam ne dal na seen kaw hmm. ah, muy lakk bu métti hmm. métti métti te xam naa ne nag loo ko bañ bañ tamit war nga ko mën a yéene lu bon bañ a yéene lu tey loolu kenn yéene wul leen ko ñoom waa base ñu ngi mastaw na képp ku fa dëkk li dal seen kaw yalla na fa gëj yàlla bu mu fa amati ci barke alxuraam ji lakk googu nga xam ne métti na loolu dal ci marché bi am ñu baree bare bari ñoo xam ne yàqule nañ yàqule yu métti di mastaw ah, ci turu nag entire kiw groupe yëpp mhm. ñu ngi bool booloo di leen mastaw tey nag foo ñu njëkk dem mhm. dina njëkk a dem seeti mayoress bu Banjul ah. waaw ah. Rahim Malick Lo waaw daa boo ma nga fa woon ñu def rali bu rëy ci aaj ba Banjul mhm. buñ ca jógee dinañ dem seeti waa Ibo Town seeti looya Ousseynou Dabo buñ ca jógee buñ ca jógee dem seeti waa Ibo Town buñ ca jógee buñ ca jógee ñu dem seeti waa nawek waa am na koo xam ne wax na ah. <laughs> attaque waa nawek waaw dafa ah. attaqué nawek ndax ah. nee na moom toggam yi mooy loolu ay ca kon nañ ci dem ci kanam tuuti lay waaw waaw ci kanam tuuti lay doon mhm. waaw tey dañu dem seeti ji lii nag léegi mhm. yow laay laaj fuñ jëm roxi malik loo yaay sama waay roxi malik loo yaay sama waay. Eh, duma ko wax man raxi Malik loo eh, yaay sama xarit. Eh. borom Banjul kaay. ana meilleur respect dama lay way. raxi Malik loo ay meilleur respect dama lay ji. loolu for na raxi Malik loo ay ca ñu dem. raxi Malik seeti meilleur respect bu Banjul. Mhm. sunu xarit boobu. Mhm. waaye nee na fu la seen nga seen ko. Mhm. bu dee yaa ko njëkk a gis demal. de moom it bu ma seenee na taxaw de <laughs> ndax fu ne ma fekk ko <laughs> kon ñu dem seen di Rahima rek loolu te del si waat sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin bu ko defee rek mbokk yi dañ ñëw doxantu si fii ci biir aaj bi ci Banjul euh, seet si nag rali bu rëy bi fi am nga xamante ne nag sunu ndaanaan loolu daf fi teew euh, kooku nga xamante ne mooy sunu mayoress bu Banjul di Rohey Malick Lowe euh, ñu nuyu la nag Aysatu Njaay di doomi ndeyam nga xam ne fu nit gis Rohey Malick Lowe rek gestu gis fa Aysatu Njaay nga ñëw na gunge su ko ci bésam bi nga xam ne tey rali bu rëy am ci waa UDP su ko fe ñu welcome Rohey Malick Lowe Rohey Malick yo sama doomu ndey ba ay waay roxe Mali Diop sama doomu ndey ba roxe Mali Diop Ah, ah, Rahim ah, Mali loolu moom xam naa dund stress de. xam nga lii. yow stress de. la. Mhm. Mm. ma kalpe bi wadda di. loolu laa gis loolu laa gis am na poos dugal ko ci poos bi rek. ma si kalpe bi waaw waaw. xaalis bi laa bañ a génne. waaw waaw waaw booytu booytu makop bi makop bi balaa mu root. waaw waaw kenn gisut kalpe bi. am na yow kalpe bi fees na xaalis de Rahim Mali loolu. xanaa da nga ñëw tey pour defante. war ma julli ci yonent bi ma Rohim Malick Lo maa ngi sant bu yàlla bu baax waaw bi maa laaj mayoress bu Banjul buga Banjul moo tax ma laaj ko Banjul suma aleel la mm. suma papa daf fi jaar liggéey fi liggéey bu bu ne mm. liggéey bu mucc ayib suma papa moo fi jëmbat garab yi garab goo gis Banjul suma papa moo ko jëmbat ah. dafa jëmbat dafa bi amatul wee mm-hmm. ah. loolu dégg naa ko démb fa ma demoon mm. ñu ne ba marché ba ñu lakkee lakk gu métti gi waaw sa papa moo taxaw tabax marché bi waa waaw waaw man mii la su papa gisee nuñ nuróoyee maa suma papa xaaral ma wala billahi su ma amoon suma photo papa su ma ko wadee mm. di nga xam ne maanaam suma papa benn rek daa dégg la kay mm. suma meko bi baax na de kula meko bi yow ah? kula meko bu bees la ma tur bi ali ah, la la mes mu tudda sofo naturel la ndax la ah. India de laa ko jëlee India waaw ñun rek ci xale uh, bës yéen eh? kay am ngeen ah. bës ñun rek ci bës yéen ak seen bës rafet yi xamee nga ko maa xam Aysatu Njaay moo ma yar di Aysatu Njaay ma yar Aysatu Njaay yow jaar groupe yete Aysatu Njaay yow dama la buga yow foo dee ma xar fa yow waaw borom borom borom meegaan mooma yóbbu si salon bi mooma yóbbu si salon bi ma defar nii mu ne ma royi da nga war dem si meeting bi si aaj bi te te eh, suñ président bi dafaa ñëw hmm. looyaa Ousseynou Dabo dama buga nga def ba mu baax dama buga nga aj ko ba si kaw yow roy xam nga noo def yow def nga ba baax hmm. tabax nga ba mu kawe ah. ci suuf looyee ci kaw yow yow rohi nee la yow ku la romb rek ngobi la romb sa njëriñ tëgg sa mbécc ku la romb romb sa njëriñ ku ko romb romb sa njëriñ ku la romb romb sa njëriñ waaw mer feeling pack ah way wala ko tele mer feeling pack ah mom ke feeling pack yow doy na nag bu ga xaar ba roxi demum foo jaar man ma may res bu bañul di yow gis nga hmm. rohi man musuma la gis rohi xam nga fi Gambia lañ du fonké meyo wala meyo res waaye jóge soo demee America hmm. wala nga dem England hmm. wala nga dem Nigeria rek Nigeria fi Mm. elfrid de dañ la jox xar bu ñoo ndékkee mm. nag bu ñoo añee mm-hmm. ak ginaar yu ñoo reere na jiree gouverneur rek borom daraja ajeena waaye fii damaa romba sax buga kuma oo kenn du ma faale taman maay meilleur res bi fii si Banjul loolu jaaduwut man maay meilleur res bi lu nekk laa fi liggéey te Banjul na daf ma jaral lu nekka bi ko suma aleel la mm-hmm. suma papa jaar na fi mm-hmm. suma ño maam yu bari jaaraw nañ fi dégg nga su fekkoon xanaa amuloo ne Banjul suma ñoom maam yi dañ ko waroon a jël teg ko si seen loxo bi ko tubaab yi doon joxe Mm-hmm. waaye suma maam bi fi nekkoon time boobu dafa fekkoon mu génna mm-hmm. dem ndar mu demee ndar ñu tuyee ko fa ñetti ngan mm-hmm. ngani ñetti fan di ko i ganaar di ko wéyal ay maamam ba mu fàtte ne dafa am banjul balaa moo ñu fekk tubaab bi joxe ko tubaab bi mu ko dénkaane mu ko dénkaane loo ah, man saa yu ma jàkkaarloo ak suma magi bopp ji yàlla xam ne ne dama la bëgg pire man duma la bàyyi noonu waaye yow xam nga lan la waaw man lan laa def nii dara lan laa def nii dara am na ñu ma bañ si seen biir xool loolu kay xam na am na ñoo xam ne dañoo ñëw di ma péetoo su yoree seen lifin seen caméra yi sax seen téléphone di la moytu di ma oytu te loolu baaxut loolu de rafetul man laa fi def man man man fekke dama ñaaw ñu wax ma ah, ñaaw dama ñaaw man yow bañ bañ bëgg dama ñaaka xoro roxi dégguma li ma lay wax waa déglu naa gis nga moto bu jëlee tali di dem ah. kenn du korne ki ci ginnaaw ki ci kanam la ñuy xoon pour mu bàyyi yoon bi ñu dem te soo bàyyiwul yoon bi duñ dem ah. moo tax ñu ma bëgg a rey ak xoon pe pe pe pe waaw waaw ba sona waaye du ma bàyyi yoon bi de ah kay gis nga noonu hmm. ku nekk ko am Mhm. waaye saa yoo jullee ñaana sama noon yàlla bum mën ci man dara. lu mu fexe mu rëcc du dem. waaye ma ne doomu la am na noonu yu am doole day soxor de. moo kaw doole doom noonu da yokk jom. ah waaw noonu day yokk jom da lay nga jëm. am nga jom am nga ful am nga fayda. maa la wax lii fii kenn suñ paree na épée bi. ah yéen tamit nag la tey di. waaw waaw man Rohy Malick la pareegu ma yow. Mm. laajoon naa la nooy dóoree sa noon. Mm-hmm. nga wax ma ko waaye sa robe laa bëgg ñu wax. ah, ah robe UDP rek yeloo def ba mbaas yow Dabo bég na ci yow Dabo mooy suma xarit mooy suma bakkan di suma papa ma wax leen nag leena meeting bi mm, mm. li nga xam ne moo fi waral meeting bi tey fii si Banjul naa leen ko wax mooy lan ñu ne alali Yaya Jammeh ji nga xam ne dañ ko firis mm, pour war koo delloo government war koo delloo réew mi ma roxi Malick Lo ma yeres bu Banjul maay wax ak yéen alal jooju do alali kenn alali Meyoros bu Banjul la. Mm-hmm. alali waa Banjul la. Mm-hmm. alali BBC BBC. Eh, loo koy doyee loo koy doyee ko war a delloo ci BBC gi nga xam ne. Mm-hmm. moom la waa Banjul jiite Meyoros bi nekk nii taxaw. da ngeen ciy def dara wala. am na ay projets yu baax. Uh-huh. yoo xam ne i thousand of thousand people. Uh-huh. yoo xam ne Gambian people lañ ay Gambien Gambien Gambien lañ. waaw ñoom ñoo xam ne ñoom. tamit dañ ci war a leen lii eh, ah, nga li bokk na ci liggéey ak wane say jéego. Ah, waaw ah def sa fashion. waaw yow xam nga ma bëgg nag alal boobu ba muy doon mm. buñ ko jox Samba buñ ko jox buñ ko jox Demba buñ ko jox Paate buñ ko jox Paate buñ ko jox Waale alali bi si si bu Banjul la mm. dañ leen ko war a jox because xam nga lu tax ah. maa ngi bëgg a mer nag te su ma meree du baax de roxi bul mer fii bi si si rek lañ fi jël ñun mm-hmm. teg ko suñ loxo ñu dem fekk kees ga wëlbate ko dërëm nee ko fa 136 hmm? dollars lañ fa fekk alhamdulilah hmm. xam nga loolu mënut a liggéey amuñ benn xaalis be pare bor yi ñu fa fekka over more than thirty seventeen hundred and fifty one hundred and million something five fifty nine dollars million dollars am nga loolu kenn mënu koo wax déet kay loolu kay kenn bor boobu dafa bari roxi maa ngi xam ne ah li nga three thousand hundred and fifty one hundred and millions point 25 17 18 400 millions lañ fa fekk si moom. loolu ëpp na kay loolu kay war a jékki di ko fay. di ko fekk laajee. doy wàññeekoo li nga wax de yaa ngi gën de yokkal ba mu yokk yokkal. xam nga loolu duñ ko fay. rooxi rooxi na loolu. Eh, foofu la nga oh, na foofu baax na baax dimbali ma rek kon alal boobu kan moo ko waral moom ah yéen xanaa yéen ñu ko laaj yow liggéeyaloo ñu joxuloo ñu xaalis bàyyi woo fa xaalis hmm. ba pare bàyyi ñu fa bor bu du jeex ñu ne dañ firis alal ji bu ko delloo réew mi ñu ko jox waa BBC BBC man BBC xama fan la ma toppee ay yéen gu ne le wàcce leen ma man BBC mosu leen ma interview hmm. mosu ma interview suma mbooka mosuma dem si seen radio mosuma dem fi ngeen toog topp toog suma kaw bopp bi lu ma waree ne BBC BBC laa bugg a wax soona naa mm. addina yow gërëm naa la yow sant naa la jonga mm. ma piir nga am nga fula am nga fayda am nga jom say bu ma ameewul ma bëgg a wax nga ñëw interview ma yàlla sa jaama yàgg kontaan naa si yow ma bëgg a wax lu leer nag mm. alal ji bu génnee billaay bu ñu ko joxut ku ko lekkas si fii laa tak fii ba bu ñu la ko joxee di ma compal comp yow ñu la naa la compal addina waaw man bëgg naa ci yow roy Malick de foo jaarte Su ma san sai dole sí, sí, na sí, sí, na sí, sí, sangare sí, sí, sí, ana rohe sí, sí, sí, se te ko sí, bi sí, sí, sí, ah sí, sí, sí, sí, sí, sí, léegi da ngaa ñëw ba suma ba suma interview di woy sama yow la moo tax yow la moo tax nga bàyyi bilaay bañ ma doom day ah suma bayoon daa mel nii ah waroo def loolu de waroo def loolu de bu la jëndal ebe eh, nga maa woy aji huja ba nga maa bi sa ban uj ba aji huja man bëgguma ebe nag dem jël lu am fula nag dem jël ebe lii laa de lii laa de jotee ma waroo def loolu de loolu baaxul léegi woyal aji huja léegi ajo ko be yo tan je ga ba ah. dibale ba ngane ajo buja sa bro we sa lu taxaw yo dibale ba yo yo nga torop ajo ko yo san ma ne dibale ma lool andu lool andu soof andu andu yéen baana kon baana ma sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi din bu yeewoo samari mel na ni kon dem nañ ba ñëw gis ngeen ki nga xamante ne rek mooy jigéen ju mën góor mm-hmm. yàmmaari fàkk tëdd googu mm-hmm. doomi suñu papa jooju di mm-hmm. Malick loo ca Banjul eh, di Rohi Malick Lo ah Rohi Malick Lo wax na waaw Rohi Malick Lo wax na ndax xam nga ne moom Banjul la bëgg ci xolam waaw ndax papa mos na fa nekk meyo kon cosaan la ci moom bu fa nekkee mayoress tey ndono la ci moom dëgg la waaye itam bàkk la bu am solo ci moom ndax sa papa dekkoon fi def lu rafet jaar ci istu historie Banjul eh, nga ñëw nekk ci fi nga jaar fa loolu dafa day waar te it la ko baa waa Banjul bëggee woon ba tax ñu fal ko yaakaar naa mu ngi ci ndax tey lu mu wax rek Banjul lu mu wax Banjul waaw waaw waaye nag ah wax dëgg yàlla euh, feccam liir la bu neexee yaa jaa jàpp ca wagg mhm. gis nañ ne dem président bi jàppale na ko mhm. ba liggéey bi yëpp gën a yomb am na solo daal kon Rohey Malick kontaan nañ ci yow discours bi am na solo waaye nag li ma jaaxal mooy xaalis bi mu ne nañ leen ko jox ñoom moom daal dafa ràcc rek di tay ci ronam waaw ñu war a nangoo ci ah waaye olof Njaay ko wax de ràccal tey sa kanam mu ne la xaalis bi ñu war a nangoo ci former président waaw war koo jëlee foofu kon waaw mu ne nañ leen ko jox ñoom waa BBC BBC xalaatam la wax de ak bëgg-bëggam waaye tamit jëlu ko jox ah, kon laajul ñu jox ko mu denc ci gafaam de jox leen ñu ndax dañ ci am ay projet yu am solo yuñ ci bëgg a ah, def ah ok kon baax na te bind nañ nag président bi pour président bi tontu leen ca lañu ko laaj muy loola ray buñ la ci joxee dal chompal ñu rek waaw man man mom muy loolu ray me and you bu ko defee joggé nañ ci mom momu di mooy res bu Banjul dañuy dem nak séti maire bës maire bës nag fu mu jaar bay fa bës waaye bésu tay lay bay bës ñu dem séti ko ci dellu si sin ma ngay nelaw bu yawo xalam yi jin bu yawo samari yi ah mbokay nak tay ki ma leen di bugg a indil ni bu ngeen ko sétané di ngeen bekk dama dox dajé ak mom ci ben xew waaye mu ma mu door di ma waxtaana wax ju neex noonu nag mu ne ma xaaral ma dugg ci biir te ñëw yokkali suñu waxtaan bi mu ngi nii di dugg si kii xam nga ne waa ñëw nga ñëw naa xanaa la wuti woon ci biir dama demoon ñaan ndox ñaan ndox ah. na nga def waaw yow meer bës ni nga ñëwee xew seetlu nga ko man baay meer bës di <laughs> yàgg na naka yaa ngi fay maa ngi fay yow meer bës nga ne bi nga ñëw ci xew li yoon wi nga dugg daala yi nga soloon dafa dama xil baa dama xil dama moto ba moto ba ci bi ah. waaye waaye waaye. xam nga fan yii lu ma la bëgg a dox. xamuloo ku jege baro. ah da nga a dem ci baro. waaw yow loo wuti ci baro. déedéet foog ma wax ma waa Ibo Town na ma yónni si moom. xam ah. nga Ibo Town. waaw bos nga faa dem. dem naa foofu samedi bi passé rek. hee. mère Bës. loo wax ci Ibo Town rek des na. déedéet fan ndanka de xam nga man li suma problème. waaw ah. muy waa Ibo Town du tax ñoom waxuñ ba tey. ah mu ngi koy wax di dañ amagul waxukaay. maire Beuze yow mi nga xam ne waa boo Town na la yónnee te wàññi ko waru la xam naa doo ci yokk doo ci wàññi. dama jaay doo dee jaay ceen doo dee jaay ceen. ceen i ceen laay jaay. Ah. i bokk sax dégg naa mbuus bale def ceen itam yaa ko moom. waaw dama dee jaay tamit lifin naka lañ ko waxee Ibo da ice. ah da ice ah, naa ko xoola. waaw mun nga baa ngi nii. boo amee biir. waaw biir bu rëy. lii ñaata la maire Beuze. Aliou amuloo ko kii ma. ah mère Beus bii kay doo ko yóbbu. ma koor suma doom bi. ah mère Beus xoolal. naam. yóbbu na ko di. yóbbu na ko waaw dama bëgg soo bëggee sama lebal la ko. ñaata la ni. waaw te yow mère Beus yaa ngi yore njaay mi xamoo lu mi jar ñaata la. foog naa three thousand la waxoon de suma juumut. lebal nga ma doon def. waaw baalal naa la am. three thousand su fekkee weer bu dee la. billaay two three thousand five. mère Beus aw ma ko. amuloo ko. three thousand man jaay ma indi woon Ibo Town ah Ndiaye moo la fi indi woon waaw ma ñëw bis nga ñëw fekk fi xew li too waaw ah yow mii ba sa bis tee doo ko maa ngi jaay tam indiw indiw waaw diw waaw yi dem bi tamit dama koo jaay ma xool suñu bi rataxee dama jënd ko waaw waaw foo nal xet bi nee na de waaw waaw waaw ah yow mère bés da nga am bés nag waa mère bés la waa Ibo Town yónni ba nga bëgg a dem ci baro waa Ibo Town ñu ne xam ah. nga mère bés fu nekk la dee dem waaw dafa dem si baro dañ ko de gis si baro ma leen baro suma xarit la di ba pare nga ma laaj xamuloo ku jege baro waaw waaye xam nga time boobu noonu mm. ak léegi du benn waaye mais bés léegi am nga bés yow foo fëgg ñu ubbi la waaw waaye du léegi xam nga time boobu ma xale la waaye léegi dama màgget mm. li ma bëgg a mooy mm. dem si baro te dinaa ko ko wax waa Ibo Town yóbbante nañ ma ñu ne man dama jege baro -hmm. ma ne leen lu ngeen soxla -hmm. ñu ne ma ñun waa Ibo Town duñ wax waa Ibo Town noor ndox baa ngee yool nawet ndox baa ngee yol hmm? guddi ndox baa ngee yol fajar ndox baa ngee yol diggi ca ndox baa ngee yol te xamul fi ndox bi di joge te óorut hmm. ndox boo xamul fu moo jógee di seena si bunti kër ak kaw yoon óorut hmm. man na leen wax dëgg yàlla loolu d'accord naa si da naa jékki-jékki yéen ñoo ngi dugal si ndox bi beneen bi ban la loolu óorut pax yoon bi yoon bi ngay jaar pour dugga Ibo Town waaw moo bari ay pax pax torop pax ba dee fuuxal yoon ba baaxul dañ leen fuuxal te loolu time boobu noonu buñ ko fa doon def Barrow nekkul si réew mi dama bëgg nag his excellency di président hmm. Adama Barrow hmm. suma doomi bàjjen la hmm. maa yaay ma bokk benn maam waaw bul fàtte waa baadaala yi de ñoom it yu bind nañ leetar jox la ko de yaa ngi ma doon won leetar bi waaw mooy ñi dëkk Ibo Town ca biir baadaala waaw waaw ñooñu tamit wax nañoo man gis naa si leetar bi ñu ngi fa bind baadaala Barrow maamam ak man suma maam seen ñaari maam yi ñoo bokk benn teen buñ daan rootee dégg nga yenn saay ndox bu mu ree mu mu roon ndox bu naxari suma maa ko ndox kon baro suma ko waxee war naa dégg Ibo Town soxla nañ la mhm. soxla nañ la de dëgg dëkk bi fii ñu bari bugga nañ la yaa ngi seen biir xol yi. waaw waaw waaye dama nga bàyyi xel Iboo Town. waaw nam yoon bi dugga. Mm-hmm. di dem ba si fiil bi. waaw waaw paxi kese la ak oto bu fa dugga boo génnee dem ci garage. waaw waaw nit ku fa dugga buy wàcce di génne dugga garage. nit ku dugga Iboo Town su génnee dugga garage. te ndox baa ngi seen a guddi ak fajar ak bëccëg da nga sa bunti ne ndox bi di la. dem garage di dem garage. Mm-hmm. danga ne salaamaaleykum génn ndox bi nuyu la. Ah. eewu sa biir ne wàcce gi daje ndox bi mu naan la foofa na. léegi bu yow nit ki bu demee garage lu ñuy def ci moom. ah xanaa ñu deferaat organe am yi hmm. tànka yi xam nga ñaata nit a si yoo yónni boo taaw bi eh, te loolu dara waralu ko lu dul government ñoo leen war a jàppale. Hmm. man na maa fi amee kaddu Ibo di hmm. dimbale leen waa Ibo Town. su fekke ne waa Ibo Town mënuñoo waxal seen boppa ñun ñu waxal leen. ñoo la yónni kay kay si laa ñi Ibo Town ngay waxee. waaw moo tax ma wax loolu man daal sëgam yow xam nga baro boo dee dem sama mun naa laa jox paas ndax lañ ñor waa Ibo man mii ñor na ma. du Ibo Town yëpp nag. waaw waaye am na ci ruuxa yoo. waaw waaw neewut a su newee jotee am na foo xam ne ca Ibo Town am na birij am mbalit mu baree baree bare bari ah. su newee jotee. foofu naka la fan nit di duggee. nawet dina jeex ñetti weer jëm ñeenti weer ba juróomi weer ta ndox mi du jeex. ta man dama ma bugga su nawet bi jo jotee may dugg a Ibo Town fu ma neexee. di jaay waaw waaw di jaay suma bagage di di jënda. léegi su ma buggee am client yoo xam ne dañ ma leb di ma laaxaatu ba nawet may daxante ñoom ba nawet bi dugga naka laay duggee Ibo ah kon de fayee ko man nag meer bës wax nga ci. tey jii su baroo doon am meeting foofu du fa dugga. Fada ah, moo jaar te Baro nag dafa war a dem seeti leen dina leen seeti Baro demal nga seeti waa Ibo Town ñi la soppa ñoo fa nekk ñi la buggal dugal leen seen biir xol ñoo nekk Ibo Town man meer ma si góobee gar ko yéen waa Ibo Town nekku leen si lu leen nee da ngeen noppi rek di seetaan te time bi leen doon dal depuis tubaab yi wala yéen yaay ñooy wax kat tubaab yi jaar nañ fi ba dem Ibo Town baaxul ba président na ko yàlla yéram jaar fi ba ba tey. Mhm. jaame jaar fi ba tey baro na bu ngeen bu ngeen dof dof loo bem raw leen. ngeen yaaku de awa gay <laughs> ngeen yaaku de. bu leen raw jàppaleen si. waaw waaw aftaan bi binda leen yuuxu leen def leen lu ngeen mun ba yoon wa baax. xam nga lan ngeen sola mm. ku leen defaral yoon. because kër yi de seena moom kenn mënu si dara. waaw waaye yooni. fàttaleen kër yi bu mu seenati waaye kër boo xam ne ñax la ak ndox ku faa dëkka Hmm? nekkul soboote de. wallaahi waaye dëgg moom ne dëgg la. Mhm. yéen waa Ibota am du ñëpp am na ñu dëkk si jaama. Mhm. si biir Ibota waaye am na ñoo xam ne gox yoo xam ne dañ leen war a dimbale man meer bés nag maa ko wax. waaw waaw ma si góobee gar ko. eh ma si nga ni ma. lu ma si góobee gar ko eh nga ni ma man meer bés pareegu ma si yow man dama bëgg a xool sa make up dama bëgg nga zoomal ma kii Sira. jëlal ma ko ba baax jëlal ma kanamam ay braawunam ku la braaw ku la braaw suma suma jarbaat ah sa jarbaat defal na la Mariama jarbaat de so pare yóbbu ko koot England la moo sëy Mariama England te yow ki la make lii moom nga yóbbu England duma ko may yambari de taxawaalu may ko edu mayuma ko edu edu moom ku baax ko may use parce que suma suma doom bi aawa lay doon du ñaareel ah. waa use nag ki jóg mayuma ko ko use mayuma la ko ah. maas mayu ma ko maas. Ah, mu ne soo ko soo comme yuus mu ne comme léegi mu yaaxal sa soobi soo ko. bu yeboo yaaxal suma ay yow doo yaaxal sa bopp ay ma la suma doon ba jama. waaw mën ngaa dem mère Beuss mère Beuss dem soo amatee looy wax. waaw tey Ibo Town na xew. waaw beneen gox benen beneen gox ay xew. yaa ngi ñëw waa Bakote li ngeen mel neexuma. ni waa Tabakoto réglé leen. Hmm? waa Tallinn xam ngeen seen. bopp tey waaw mère Beuss yow nii dañ leen nar a bàyyi. yéen waa Bundung xam ngeen na. wax naa si baa ñu doyalut waaw maa ngi dem Esau. ah kay baax na ok yow doo jënd si suma njaay mi yow. ah yow li nga jaay mi ba 3000 yow ko ko seet 3000 aw ma xaalis ba. kaana lebal la. mi ba li nga leb dafa de. fii be fii be next month. next month. waaw waaw ko def next year 2021. time fii be ñaari at sax man dinaa gudd fan man deeguma time boo amee rek nga fay ma. sin ma ngay nelaw. bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar dem nañ ba hmm. ah wa yéen. no xam naa ne nak Ibo Town war nañ ko defal dara. Ah. ndax gis nga limu wax ni man dama ci tek bot <laughs> mu ne mu dafa jaara koket coquette coquette ya dugg ci pax ya hil ba dam mu jaar ak auto tanki puno me toj wa meen beus mom <laughs> li ci gëna a moy <laughs> ah. euh ndaysan wa Ibo Town dal dañu dañu bax billahi ta mën muñ. billahi waaye nak comme nii ñu wax nii li mhm. maire wax ci ci baro mhm. bu ko baro seetaane xam naa dina ci jàpp waaw ndax moom it plan am mooy ñëpp kontaan te nag dañ ci yokk ci li maire wax waaw Ibo Town gox la bu am doole ci réew mi am doole yéeme oh, kon président li la maire Beus wax bàyyi si xel mhm. eh, ndax tey boo gisee ñëpp jóg buur yëm ci sa kaw di wax ak yow rek dafa fekk ne yaa toog ci kaw toog moo boot ñëpp yow la fi yàlla teg waaw waaw bàyyil xel waa Ibo sonn nañ bilaay seen yoon ya métti na wax dëgg fa yàlla bu nawet jotul dañuy sonn hmm. kon bu nawet jotee fu jëm xaw ma ko walaay bàyyi leen xel lu am solo am na ci solo kon ñu ngi wax ne waa Ibo Town ñu ngi leen di ñaanal jàmm yal na seen jàmm yàgg ku fa dëkk yal sa jàmm yàgg waaw ñu dem nag seeti looy seenu daabo eh. mooy ndaamali de mm-hmm. ndaamali saf waa UDP mm-hmm. ñu dem seeti ko te dellu Dabo du la dañ ko bëgg eh, Dabo du la seetaan nga fii ñaaw dañ ko bëgg mu yaa yor fi mu yaa sa fi li nga lay teral ah Dabo <laughs> sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin bu ko defee rek jamono ji dañ ñëwaati nag ci ràlli bi waat mhm. bañ jógee nag ci roxi Malick Lo ñu dem nag añ bu baax mm. suur defaruwaat nag ñëw xaar nag ñoom nee nañ seen président ah, muy looy Ousseynou Dabo mhm. moo war a ñëw nag jamono ji moom la ñuy teetu teetu bu Mister Dabo Dabo daabo daabo daabo affaire bi yow la kenn du ko dindi eh. daabo <laughs> <laughs> affaire bi yow la kenn du ko dindi <laughs> daabo eh. eh. affaire bi yow la kenn du ko dindi daabo affaire bi yow la kenn du ko dindi daabo affaire bi yow la kenn du ko dindi daabo waa mista daabo affaire bi yow la li ma laa njëkk a wax mooy fu ma romb ci dëkk bi ñu ne waagaan hmm. daabo dafa géej ci waagaan show ah. lu waral géej yaa am nga Dabo moom du nekk heure bu nekk mu ngi mu ngi génn. asalaamaaleykum asalaamaaleykum. alhamdulilah alhamdulilah. waaw Mr Dabo. salaamaaleykum. Mariama alhamdulilah. macha allah ah si salaamaaleykum. Mr Dabo. Ah. xanaa sa waa kër la. ah mu maa ngi door a bàyyi xel yi dawal gaaw ceeñ ko ñëwaat. ah déedéet bii la tey ah, daal la yi nga ko xam nga ah. soo gaatee. nga tuti yu buga la yab te eh, abo hmm. ne baro dabo defa gatul gambia hmm. ponkal yi ñoo bare rek malox li waaye daa boo eh, gaatul de léegi ma bugg a affaire bi jóg tuuti waaw waaw njoolaay bi ñëw ma ne araba sol bi gisuloo tey tey mu bëgg maa ngi maa ngi njool <laughs> malox li maa ngi njool tuuti hmm. waaye góor de njool waaye mbaali kontoon na mbaali ah. mbaali kontoon na mbaali jaay naa dara su fekkee bëgguloo ma génne. déedéet déedéet dara nga njool tuuti. yow réew bëgg. réew mi la bëgg. ñee konto. ñee konto bu baax tey kontaan na. ndax xam nga lu tax. ah mbé mm-hmm. ah, eh, ngi ci capital bi. Mm-hmm. Banjul. Mm-hmm. ni moolu ɓe capital o kono mm-hmm. aduna yëppang lay déglu yaa ngi live QTV ɓe kontaane mm-hmm. su ma waxee si olof mm-hmm. dimbali ma si soose ah, aha eh, eh, eh, salaamaaleykum waaleykum salaam rahmatulah daabo ñoo la bëgg daabo mu ne mu nuyu daabo ko abal konton na tol naal konton billahi ah ñan mm. dem la. Mm. ah am dem maa koy kan sa yaa fo rek ñu ah, ma sobote waaye. Mm. lu yoon Lo. ale abe kono ha Rohi Malick Lo fan nga féete ci mbooloo mi. ngee konto mu ne mu lay nuyu. Mm-hmm. maa ngi nuyu Rohi Malick Lo. a ka bɛ rohi maalik lo on ɓe metino ko abaɗo malik lo kontonna hani natara ɓe sinole ta sa suwo kono ƴana ye sinoje woliya ten ani morɓe metinolel i ganana metino tiña yom e wuma de balma ndox a ah ani wo ma ñana kala waxal yow mais dina ko la mool be mitino la e be sino la bila su génne amaatu lu ñu wax ba daabo mi ngi mitin déglul mm-hmm. ay dafay de mo bi na shalal de billahi wallahi be mo bi dina ko na ah, de be jalo bete ata bari la jale ya nyimma bete ata kadiam diam diam diam ah o mam ani wa mam akabe ɓettiyaamo mm. mm. ah, ah. ah. ɓa kane eh, woman eh, eh, ɓettiya ma ngeenu rohi malik lo mm-hmm. a kaɓe mm-hmm. rohi malik lo kontonna ba ngeenu wa banjul a kaɓe mm-hmm. banjul kool kontonna banjul eldas banjul keɓal banjul yuut banjul banjul fondinkel ñu ngi yëpp nuyu. ak wol bébé ñu ngi lay fay. nuyu mooy président 2021. min mbaal kon min mbaal réew mi ka moom. mani réew mi daaba mooy kii ka moom. man jëlaguma ko dama ko bugg a jël. yàlla ko ah, su loolu paase. ko jël fii ci Banjul. Mm. Banjul. ku nekk xam na ne ga Gambia Banjul moo tax. mooy capital ba de Gambia ndax soo demee Angleterre. Hmm. andu ni tara wala America. ni hmm. tara America. wala Sénégal hmm. la wax ana waa Gambia. ni ana waa Banjul lañ leen njëkk lay dëgg la tàccu albulo albulo albulo ko ah, foon. Ah, ah. lan moo moo Banjul fii. yooyu bari. looloo ma jaaxal. ah. jaaxal nañu de. liggéeyuñu ba mm. suñu ko liggéey yow du fi fanaan. billahi dëgg la ñoo kontaan yow ba jeex tàkk ni Seera Fall kontaane woon. eh mu bëkkatu dong ah, ah. Ah, eh, na ah i ka bula fo ni na ni nga pare. ko bëgg la rek. bëgg la rek ah ma lafiya. la léegi. Hmm. lu dah ñu yab ma géej gena ya génna ya. ya ¿Ah? su ma géej a génna nii nga bugg a ñu yab man géej a génna moo tax ma sol daali jigéen dëggal ndeysaan dëggal ah waxal la neex su dee géeju ma génna du ma sol degal jigéen daali góor tuti. sol dëggal waaye bugg a njool tuuti bugg a njool tuuti pour ñu ragal ma yalla nga njol wa pour day ragal ko wa so ko bëggee won yalla nga njol dégg yo warul fanan bañul déedéet kay war warut a fanaan benn. déedéet ah déedéet déedéet ay ay ay ay ay maam de ay maam de maam de maam de ñaan naa la maam taxawal ani biti noo te bete maam lay UDP ti ñaata ter ñoo kontaan tey UDP fa ngole ti ñaata kii nekkul fii yow yaa ngi wax maa ngi fële UDP ti ñaata maam waxa ñu lay dégg waxa ñu lay dégg ma ne réew mi ngi dégg waxa réew mi ngi solo réew mi solo ok ok yidi petenya ite fana wuyu ko yow fooy manqué man liñ ko di bang ah ah, ah yow ki eh, daa ah. feebar ba bari bari ah bàyyi ma yaa ngi bàyyi rek ah eh, eh, Banjul fii mhm. mooy suñu sàkk ah fii lañ moom fii am de capital mhm. yooyu ñoo ëpp nit yi fii du yoon nag du yoon fii yooyu yëpp citizen la am na ay di ah, ah. yooyu bañul fi. Hmm. yëpp citizen la am na ID card. ah yooyu ñu am ID card. waaw ah ok yooyu yëpp am na ay card. kon ñoom dama ci réew mi. si citizen la. kon ñoom dañuy yàgg foofu. maam yi foofu la jógee. est-ce que ak seen baay yi parce que kenn génnewu leen foofu. dégg la kay. ni UDP naata. Hmm, yooyu yëpp dinañ. incha allah. Hmm, waaw UDP rek moom na eh, eh, yor réew mi yooyu gën a bañ. UDP ci biir réew. xaaral. ah, ah. ah, ah eh, demoon dong ah ci yàlla Banjul dafa bari ñax te loolu warul am hmm. Gambia war nañ xam ne Banjul mooy capital mooy capital ba de ku dugg fa ngay duggee fa ku gën fa ngay génne Banjul amul supermarket Banjul amul supermarket bu mag wax nga dëgg de baaxul te foo mooy capital. so makkeen yu rëy yëpp a ngi kombo. benn amul baañ. foo bete atale ba. ni yu di pinaata. Hmm. suba makkeen ba arbe jël. waaye booy génn baañu si aaj bi am na benn. waaye am nañ ay vidéo club. Ah, waaw a waaw baañul hay amul ci soose. ako ma suda andu toña hata ah, sey sey ko de bala ko mama ko isabari isabari bala ma suda toña lam amam min del wax nag bañun luma am hmm? ni nga wax nii rek ñu bari bàyyi wuñ ko xel. bu jógee Dakar. Mm. Dakar. Mm. Mm. wàcc si feer bi. fan ngay jaar ah, nga gis Banjul yooyu di la gata. di la wax ana bokkee. léegi luy solution bi. ñu jël réew mi jox ko UDP. Ah, bim réew. Eh, ndaw ba ah ah ah. ah eh, ah ah ah ah ah ite fanan ka wuri le nam na sa gewel mi man na muñ de i fanan ka wuri ba dama ko bëgg bëgg mi mu ko ndeysaan da nga mu na sa ah. ya mm. yone mm. mm-hmm. mu na la kep rek nga ah billahi ya ngi de 2021 mm. UDP bugana jël dekat, mm. banjul eh, munaba. na baax mm. eh, eh, su loolu mm. banjul du Yang yal jel, amin Yang nañ jel, amin abi nih nala. waaw boobu neex na yal nañ ko jël gidda ba gidda yal mu duga foofu de ah yal nañ ko jël baax na ah gidda bi gidda kii dafa guduga na bu affaire bi duga ci foofu ah mitin la mitin la mun loo jottali ah sa yaay baax na mm-hmm. mm-hmm. waaye yow baaxul saay-saay la. ah ah ah. Mm-hmm. saay-saay la. waaw. waaw waxal ma jottali léegi. waxal ndaam yow tam yow neexaloo su ma wax rek nga gaaw gaaw la. yaram bee tàng yow nga yeexal lan. ki yaram bee tàng te yaram bee tàng. waaw Daabo kon mel na ni rali bi ñii la doon xaar. wax nga ko ci sa kaddu pour ñu dëgëraat kaddu gi rek. waaw euh, monsieur Lawyer Daabo mu ne. Mm. Banjul mooy capital bi nga xam ne amul supermarket bu mag. Banjul mooy capital bi nga xam ne amul cinéma ah. Banjul mooy capital bi nga xam ne bari na ay pax bari na ay yow ah. te nag moom mu ne buñ jëlee nguur gi jox ko ko dénk ko ko moom mi in 2021 ah. dina wecc yooyu nga xamante ne mu ngi ci biir Banjul te waru faa nekk kon daa ba maa ngi lay tàggu jox waa laaji de lu tax mm. ñu jox leen ay dëkk mm-hmm. ah ba teg tamit mu ne mm-hmm. yooyu nekk biir Banjul mm-hmm. ay siti sit lañ ba pare teg si dañ am ay dëkk la moo tax mu ne lu waral loolu xañ na moom bu toogee dina ko farafànce su ma ID card yëpp dinaa ko nangu ma génne leen si biir di poor leen ñu génn baañu waaw foo di yóbbu soo ah. leen di pooree loolu ma jaaxal non fu ñu dem baax fu ñu dem baax ñañ ne 2021 di nga nekk président ah, inshallah ni Allah sonta ah. la président 2021 fele ntala bali ba koto kane sain place koto ñaadi fɛn man kusu ye ani wo man kɛ fɛn ani wo man kɛ fɛn ani wo man kɛ fɛn ani wo de wo tɛ fɛn tɛ ani ko adi dinni wale dɔli bɛ jɛ dɔli bɛ jɛ wale kɔtɔ dɛ n tɛ cɔ tɔ kɛ ci tɔ gubi ye dɛ wondelu mayi ma wondelu dabo dabo affaire bi ye wula noy tonto sanon dabo noy tonto sanon noy eh, tonto sanon wuron dabo ren daaw ba nooy tontoo sa noon ren eh. daaw ba nooy tontoo sa noon ren daaw ba nooy tontoo sa noon ren daaw ba nooy tontoo sa noon sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jin bu yewoo samar yi jin ah, yow yaa tuddee daa ba Paa Bos. ah Paa Bos la di. waa gan moytul waa UDP. Paa Bos la wala waa bi waa UDP moytu ma. baax na. moytul waa UDP wala waa UDP yow waa ñu ngi lay war ba gis ma man bëgg maa dugg ceeb kaja nga ne maa la wax li man man tam waa UDP war naa leen waaye gisuguma leen <laughs> waaye ba ma gis leen rek comme jógee nañ ci pabeuse comme ni ko waa waagaan waxee di looyu Ousseynou Dabo dañu mm-hmm. demaat nag seeti mm-hmm. ñaari nit ku tudd njaago moom mm-hmm. tey ci ñaari place la taxaw moom dafa ñëw affronté mm. waa nawek wa xam nga tres mom? Mhm. yalla dafa dogal mu nek ni njaago boo xam ne ku ñak caa. ah yow ya jël njaago bi tuddé tuddee ko Thérèse. déedéet mom mo tuddu tres ak ah, yow fi la tres tek ndayam ak papaam ñoko tuddé tres mom ah. tuddé wu mako tres wa gis nañ fi sa Thérèse salaama ngeen. waaw toomaam la ah ok. ñoo bokk toomaam la. Ah, ok Edu li wa Edu xamna ci dana. tres mi bul dugal Edu. bokuma waxuma tres mi ne ci kër gi. waa ñu wara interview. wa xaritu tres bul dugal xaritu Edu bul dugal Edu yow bul dugg keroog fii nga ñew attaqué Cheikh Tidiane ay dalam tay nga ñew jël bugg a wax ak Edu. tuuti mën ko Pita ah, Edu dafa baax ni pita bi Pita billahi gañante ak yow. ki tuddul Pita. Pita de la ko may. ah way déedéet way man Pita de lay xey di ko may. sobe yalla Fatou Cissé la koy may muy awam ndax Edu dafa bax ay do la ne amu jabar. nga di ko may aw amu way na la wax. déet aw nga wax de. aawa laa wax waa léegi ñaareel la lak Edu yow am nga aw bu baax ah, ñu ne Edu bind kooko lay wër mu ne ah man de fii laa ko gaañu bitu ko ko moom boo ko songee bu yeboo bindu sa kayitu tànk bi taxaw ne léegi ñàkk la. Mbadou kaay bindal ma kayitu tànk xam nga daf ma invité woon ci Christmas bi. waaw dew ma. mu jagleeloon ma yu baax. Mhm. waaye dama ragal mu sóoru bintu ko Christmas du ko fi fekk te dama damaa bëgg a dem këram. <laughs> Mbadou kaay toog fi bindal ma. <laughs> Edu ca QTV. waaw Mohamed boos ci Edu. waaw Aliou Diallo boos ci Edu. te yooyu laay bañ waaw mooy moom la ñuy tàggee ki ñuy bëgg a tàggee. ki ñuy bëgg a tàggee waaw waaw ndax damay ñëw faatu nga rey boppam te kenn reyu ko. <laughs> ayca waaw bu ko defee ñu dem rek seeti ko. Mhm. kooku di suñu maire boobu Thérèse mhm. dellusiwaat. ayca. sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi ji bu yeewoo samar yi mbokk yi ñuy seetaan euh, last week dama dalaloon maire bës bi maire bës ñëwee nag benn njaago bu ñu naan Thérèse Njaago mu kool ma nag ne ma xadi ñang dama bëgg a ñëw ci woon nga may ma audience ma seeti baro xam naa man sax su ma amoon audience seeti baro comme nag moom dafa bëggee dem ci baro waaye ci man la bëgg a jaar moo tax ma bëgg koo laaj moom lu mu doyee baro maa ngi ñëw yow Thérèse looy doyee baro dama lay dox ndox ndox laa la bëgg a indi xam nga ndox bi seedul na nga def jàmm rek yaa ngi ci jàmm man si jàmm suma mbokkaay waaw ñu ne danga baax ay waay ndeysaan ñoom ci seen boppa ñoo la buga ah maa leen raw parce que ñi ni njaago soo ñu lebalee soo ñu lebalee mbéj ah. dañu la mbëkk rëkk lañ lay fay dañu la mbëkk ba nga teg si suuf ah? moo tax léegi nag nga debal lu baax ñu bëgg la fay lu baax ah. moo tax man su ma buggee wax dara dama laa woo be nga ñëw kontaan ma wax la ko dañu kontaan waaw njaago yi association bu nekk Banjul mm. ñu ne mm. yow da nga baax ay yow leen jërëjëf association bu nekk Ghana Town waaw ñu ne ah. da nga baax jërëjëf bu nekk London ah. ñu ne da nga baax jërëjëf bu nekk fale Fajikunda Fajikunda waaw da nga baax du moos ñu ne da nga baax jërëjëf léegi nag mm. ma wa du bari da dañu mer waaw nga ne da nga bëgg a gis baro ci man nga bëgg a jaar looy baro lu ma bëgg a gis wax ko mooy ñu ah. njaago suñu mer du gaaw mm. waaye ñu meree du gaaw a jeexit du gaaw a jeexa de mm. dañu mer mm. parce que lu tax waxali nawet wax ne affaire nawet ñu dëgër bopp nawet dañu dëgër boppa lu la nawet de njaagu moo ko gën a dëgër boppa ah maîtresse yow loo jëteeg nawet lan moo tax ñu of suma ko rek yee du yow rek maîtresse dëkk bi yëpp la hey man la yow loolu nga bëgg a dem wax bar man mii la yow bu ñëpp ànd state house fees di hey du kenn maani la. ñëpp la man mii rek yow Thérèse yow. suma firigi bi maa ko jënd ci suma xaalis. yow Thérèse kaay ma wax ak yow gis nga nawet bu guddee ñu fay courant man damaa tiim suma doom yi di ëpp bañ noo dafa yow sa doom nga ëpp man suma firigi la ëpp ba fajar du seeda suma firigi bi laa tiim di uppa di uppa be fajare du seeda suma ndaw bi mu foofu du seeda suma yàpp bu ma defu foofu ci mbaam bu des foofu mu foofu dafa foro maa ngi ko war a jaay ñoom edu ak ñoom kii perera ñoom asa asli ñoom yëpp seen yàpp foofu forox na ak yus mm. lu ñu yebee bay jël suma firigi bi muy nelaw ñetti fan du indi courant off bu gannaa nag waa nawet next week ma invite leen fii ngeen wax nit ñi lan moo tax on on off bi ah. nuñ koy defee on on off on off on off lu tax ah ëpp na suñu firigi bi ba mu commencé yaanu ah rek ñu off ko mu ne loolu pour lan la. Ah, doy na waar de. xanaa nawet gi ñoom dañuy defa ne man dama dof. ah déedéet man la ñuy xee. rek. fii amulu kenn ku ñu fi def jëf boobu. ah masa léegi nag président. suñu du je hmm, hmm. ñu njaago suñu yàpp mbaamu forox suñu fiiri bi te ñu moom la ñuy yaakaar. waaw waaw dégg ma dimbalee ñi xam ne dañuy yore jën ci marché. waaw waaw di jaay. kenn ni mu tuta togg a soosi bari dugal ci frigo. soo ko defee nga dee. waaw waaw yëpp a dina foro. nga foro sa waa kër foro seen maam foro. seen hmm. koñ bi yëpp foro. app parce que doo gis light. Mm-hmm. xanaa light bi ñoom waa nawet ñoo ko moom. waaye foog la ñii ne baro lañ bëgg a three years bi three years ne five years ba pare ñu coupé courant bi nii. ma baro yëguloo ko. ko baro yëgu lii de. man maa la koo wax. yaa ngi la pati. ah. ñu ngi pati di la doom pat. waaw waaw ndax ñu ngi jëli bi dugal ko seen poche. man maa njaago. man maa njaago boo ne defuma la dara. nga seetaan nawet di ma toroxal. ah massa. di coupé suma light bi suma firigi bi di nelaw. ah nelaw de bëgg lan moo waral loolu. Hmm. loolu laa bëgg a su fekkee ñun njaago neexuñu la nga wax xam naa ne ku nga waaye bul seetaan gaay di ñu toroxal. la ah, Gambie yëpp su amaatee. di Thérèse ay man suma yàpp mbaam forox na xanaa yéen yéen a ma moom yow sa yàpp mbaam foroxul hmm? yow sa yàpp mbaam foroxul hmm, hmm, uhu uhu sa mbaam foroxul suma mbaam bi forox na yàpp xar bu ma jënd forox na ginaar bi dafara tax yaaxu na soo si ma toogoon tuur naa yëpp bu guddee ma tim suma doom di uppa ba fajar guddi gu jot ñu fiixlu ba ñaari waxtu nante dana ba pare maa ngi léegi betu duma nelo setan tiarar si waaw waaw duma ko dee setan waaw waaw lan la ah suma doom yi yëpp dañu mel hey setan kay kay taxawal ah, fii momo de jay ice moy jay ice ngeen ngaa jay ice yo ñetti fam mi ngi ni mënumaa jay ice on and off bi ni on and off ice nii ayis baa ngi ne la ko firi. pote. mënumaa koo jaay. bale na teno jobe se na kuwa kura laite kiwti bi de yow loo dee jaay mani mm, galas sonu na de na gëj nga jaay de wa nañu nu yaakaar la xam ah déedéet def leen nang wax leen na ñoom wali njaago ah. ah tey waxale njaago tey waxale olof sa tey waaw léegi lu ma bëgg mooy nawek booy wax ñoom dang leen di baab neexal leen baab leen na waa nawek neexal leen ne leen ñu ngi bëgg a saboté nguur gi man du wax loolu. da neexal du neexal. du ñu neexal day fekke fekkee bu dee lu du jooy de. su fekkee affaire bi jafe-jafe la ñu wax ko. Mm-hmm. métti na affaire bi moo yaaxu. Mm-hmm. ñu ngi ko defar bu fekkee sabotage la kan la ñu saboté baro. déedéet ñun la na ma bàyyi baro bàyyi ak ñoom benn par benn. déedéet bu ko mayee bu ko mayee bu ko mayee treize déedéet bu ko mayee. benn ñu baax ñoo nekk foofu. Ah? Hmm. waaw bu nawet dañu baax. Hmm. ñu baax ñoo nekk ñu mun a liggéey. waaw waaw xam naa ne dafa foogloo dafa am kenn ku nekk ci ruxa bi suñ taalee rek mu dem rocci ci foogloo loolu. waaw loolu la. waaw eh, waaw eh, eh, ñu ne koy defar. Eh, ah lañ wax foo ko dama ko dégg rek nag. li ma li lo ne. machine bu yaaxu lo ñu di ah tamit nag doo wax ak ñoom machine bu yaaxu la waaw. waa ñoom seen machine bu yaaxu bi yàgg na di. noo xamee loolu. ba léegi ñoo koy defar noo la si wóor. maa ni loolu ñëpp waa bi kay wax yow dara la yow fa. yow ah. yow dafa jaay dara. man dara strand def ngir ice bi jarul dara demut. waaye yow Thérèse ku la ni. suma doom. ah sa wig bi sa dafa naay. bàyyil bàyyil bàyyil suma wig bi waaye yéen dama leen yoon dama leen. man ma man man Thérèse du suma bopp Thérèse ah, xaaral ma xool sa mees mi koy defar. déedéet Thérèse dafa ni yow mi ngi hay hay hay hay bàyyi ma yow dew ma ah yéen waa diri yàlla bu sama ada semuanya ini, mi hai, diri ala ngel off ku on ku ren yëpp ngeen ne rek du leen taal ko off ngir ala, bu ko off dibale leen ma di dibale baro ah. hay iya, waa iya. wek ha da ngeen ma bëgg a toroxal suma baam bi yàpp iya, bi forox na baam bi forox na suma ñëwee foofu du baax forox na suma baax suma ah. gaay yu baax yëpp lay yaaxal ay yow lay day yow yow man nga nga ne man ngay su. sin ma ngay nelaw bu yeewoo xalam yi jiin bu yeewoo samar yi jiin dem nañ ba ñëw lii day na waar man daal man daal lii man mënu ma ko ree ndax damaa bàyyi ay ree hmm. daam am ku ma dig nag ne ma suubu épisode bi jeexee te reewoo hmm. am na nag yu fi romb waaye ay xaqataay la rek du hmm. ree waaw hmm. ah, waaw mu bàyyi sa xel ci li ma dig billeehi boo ma ko joxoon àddina dinañ la dégg hmm. waaw su ko fee waagaan mel na ni hmm. ah, ah, treize moo doon dar kappal programme bi programme waaw di la yëgal ne eh, samedi tey bi mm, dañoo tuddee sabar fii nga xam ne moom mooy Ibo Town di malien maa ngi koy bégee bu baax di ko wax ne ñu ngi ci waajaay maag ñang baaloog ñeneen ñi waaye nag tey neema ji xam nga du yomb ak waaw waaw billaay mu nekk lu am solo waaye tamit nag lu baax moom day yaatu taxi driver yi nañ leen nuyu siyaare leen ndax dañ ñuy bégee taxi driver fu taxi driver ne ci réew mi ñu ngi lay bégee déet boo nuyoo taxi driver mu nuyu police yi man ci police yi laa bëggoon a ñëw eh. ndax xam nga police yi eh. surtout nag bundum police waaw ña fay taxaw baax nañu lool daa am ku ma romb sànq ne ma mhm. waxal sa jëkkër ne fay kayit jot na benn police taxaw ci borom ne ko kii ku koy jàpp mu ne ko leeyaay ak ñu maa mën a nag <laughs> kontaan nañ képp koo xam ne police nga ak foo mën a nekk ci réew mi ñu <laughs> lay bëggee baax rawatina trafic police ak bundum police ga nga xam ne tey jii rek laa jël salaam dajee naa képp euh, seen boos mhm. mu wax ci ñun lu bare bari yàlla na seen jàmm waaw kar Babacar Ndiaye kay rombo naa ko tànje si check point bi mhm, mhm. mu ne ma nuyul ma waagaan te nga wax waagaan ne ku ko sopp laa te maa ngi leen di ñaanal waa immigration bàyyiwuñ leen de ñu ngi lay nuyu lu bari waa PIA yu tam bàyyiwuñ leen de waaw soldaar wuñ bàyyiwuñ leen de ah ñi dugg ci ndox mi noonu di dawal seen yu gaaw yooyu leen bëgg. <laughs> ok waaw waaw. soldat mu ne nga nuyu ko laaj ko jàmm yaramam. ah Oli Diop day wax dëgg waaw rek ne ko Oli maa ngi lay nuyu na sa jàmm yàgg. amiin amiin Oli mu jóg taxaw rek jaagar jaagar romb ah. loo yor di nga ko joxe. te doo ko yëg te di nga leb dolli ca te doo ko yëg yàlla na jàmmam yàgg kontaan nañ ci moom. bég na ci yow yow it waagaan. Mm. di sant ñëpp waaw di sant ñëpp di gërëm ñëpp di mm-hmm. jox. Mm-hmm. Eh, ñëpp rek dig daje ba samedi bii di ñëw. waaye balaa ñuy dem rek ma mm-hmm. bëgg a sa xaftaan ku fi. waaw xaftaan bi gis nga ko ñang baalo gis nga ko lii lépp cotine la. <laughs> ok boo ni mu demee nga gis dafa nooy. waaw cotine bu uh, nooy la te it yem ci eh, li nga xam ne moom mooy loxo ndax xam ngeen ne loo ko mu dem. tàngaay ak seddaay ci yem boo ko rek da ngay fiix te yem na mën na seeti président mën na seeti imam mhm. mën na seeti ku ba tax na nag gis nga ko mu defal ma ci rek lu euh, simple lii ki ko def nag moom mooy Ilimane Seck mhm. euh, nekk fële ca Wélingara di Ilimane Couture euh, bitigam ba mu nga foofu atelier rek mhm. teg ci place ci sa càmmoñ atelier bi si da nga Elimane non Elimane nga defal ñang baalo yu baax yi ah, moom nag ñaw yàlla daf ko ci may bu ñawalee jigéen nga ne gonga mu ñëwal xale bu góor nga ne gonga mu ñëwal mag nga ne gonga mu ñëwal gone gu ndaw nga ne gonga man nag neegu maa gonga te ñëw ndax ma gonga macha allah mhm. ñëw rek lay def te salaam it dina dem mu ñëwal ko salaam mhm. salaam sekk si ginaar amul ba ñu kaw yaayu yaay faal ah, salaam ah, kon tey sekk la sax séeri yaay faal ah. la salaam saar yi yaay faal maa ngi lay nuyu yaay faal kontaan naa ci yow di wax ne nag képp ku ko bëgg a jot na nga ko woo ci 323

ngay tukke nga tok nga bëgg fexlo nga bëgg a bëggal say goroma nga bëggal bëggal sa bop iliman ma ci doy ay way kenn du nga man nag tey jii waagaan mhm. xam nga la ci sol ben robu ibado mhm. waaw tay tamit mhm. ka ko ñëwoon moo ñëw waaw moy muy Adam cham Adam cham man nag dina Adam bam mu cham Thiam la ma neex Adam cham xam nga man caameen yee caaj suma système waaw lool dafa leer waaw buma ciaju duma du barki YouTube waaw bu ko defé mom ma nga ci Haydara Plaza mo coupe coupe bi mom Adam cham waaw ni de la def di de la adam def boole xeeb. ñawal ma ba këreeg dara maam. Eh. aram loo maam kumba caam. Eh. ma penda ak fàtte penda aram caam yow toj nga fee. lii foor na yow bu ma paree defante yow ci yu baax waaw xam nga ñun nag sa yu ñu taxawee jekk rek dafa bëri ñuy jàpp si ñun. loolu dafa leer ah, teen dara nag ci li ñuy def. Mm-hmm. lu dul di leen tudd. Mm-hmm. leen jaay. Mm-hmm. te loolu mooy li ñu war moo tax dañ ciy yëngu bu baax. Mouhamed Haidara Plaza. gis ngeen. saa yu ma solee dàll bu hmm. ma sol nga ne moo dàq ba ca des moom gis nga ci dàll yi lay jaar gis nga bii jaar nopp rek. a Mouhamed mm-hmm. Haydara Dramane ah foor na ah bu ko defee nga demaat seeti go VIP. Mm. saa yu ne day jaar ci man mooy jaar ci xef yi. Mm. mooy jaar ci wey di jaar ci tatu yi. Mm. te léegi nag go. Mm-hmm. damay wax ñi may seetaan. Mm-hmm. ku demati ca go. wax ko ne ko dañ dégg xadiña mu ne bu bees bi. bu ko defee nag bu bees bi moom bu la ko go defalee boo génne xam ne go defal na la bu bees bi. defal bu bees waaw ah, buñ paree ci loola. waagaan ah, damay damay joxe nomba Adam. nomba Adam mu ngeen ko am ci 3 double 4 7 triple Mm-hmm. wala 248 3200 mm-hmm. mu nga ci dara Plaza mm-hmm. moom ak góo ñoo dend nga wàcc dox tuuti am Mouhamed Gueye ci Haydara Plaza moom nga xam ne moo joxe daal yee takkaay yi ci xew ak képp ku ñuy takk yaa xam loo bëgg a def rek Mouhamed ngay dem seeti mu defar la mel na ni waxtu jeex na tàkk ab bant fereng waaye mu bugg a ndokkeel Thilel Sarr borom élégance ah, magasin Thilel Thilel ndaanaan nga xam ne moom dafa judd fekk baax am baax di def baax rek nag fan yii ñu jox ko award bu am solo ah, jox ko ci ten years anniversary bi nga xam mm. ne mu ngi koy def ak élégance mm-hmm. eh, ndax saa yaa ngi fàttaleku élégance ah, waaw mosoon nañ koo defal programme ba titi doon ñëw mm-hmm. eh, ca ku ko ozone mm-hmm. eh, mu taamu woon ñu nag ci lépp lu muy def nag bëgg ñu see gis saara mu yàlla na sa jaamu yàgg ku lay xaar yàlla na xaaddi garaw say maas di dem am nañu jërëjëf ah, tey nag programme bi yëpp maa ko may El Hadj Ousmane Dia suñu bàyyi suñu xarit ah, kay imam yaa ngi koy neexal moom imam gis nga kii da lay baab rek imam maa Mm-hmm. waaw tey ah Tunkara maa ngi lay bëggee bu yoon lay ñëw di ma lay laaj tey moom Tunkara waaw xaw ma loo ko amee maa ngi koy bëgg <laughs> maa koy bëggee bu baax a baax waaw di bëggee nag ñi nekk ci ginnaaw mm-hmm. ba sax bu ngeen seetaanee affaire bi mu naagis ñoom ñoo nekk ci ginnaaw di ko rek réglé mm-hmm. ñoom Youssoufa ñoom Aliou ak ñoom euh, Kool ak gars yooyu maa ngi leen di bëgg ak ñoom Omar ñoom ñëpp bëggee nañ leen euh, Edu ak ki nga xam ne mooy moom nga bëgg a maye may Edu laa ko bëggoon ma ah. waaye léegi Edu moom bind ko ko lay wër. Fassise man di may tànn ki ma koy jox ah, ci kër gi. moom tey dafa jékki de moom ñemewu ma ko. ah yaay Fall dafa baax lool. ah hmm. moom na nee na moom tey euh, Dumbu Yes Beauty Salon ñu ko defal ci Ibo Town. Ah. Euh, jàkkaarloo ak euh, police yi tali nii. kaay waaw tey de lii la wax. bay Alaaji Ousmane Ndiaye la ñu may programme bi. ah moo tax ma dem ak yow ca fa ma daan dem ak yow. mooy fan ma dégg. sa xel dem na sa xel dem moo tax ma jox la programme bi. lii bëgg la cee bégal. tax ma ne imaam. lii yaa moom li fi def tey. Ah. yal na sa jàmm yàgg. tamit man maa la bëggal sama bopp. moo tax ma def la fii. ku la deful fii moo tey man fii laa la def. for na man ak soxna Khady Niang ak waa QTV <laughs> ak waa Gambia. masjidu taqwa jooy nanu ndax xam naa ne yow bis bu ñu neexoon bis bu ne ñu lay gis foofu ca masjid taqwa moo tax boo tukkee dañ lay namm boo xutbaa ñëpp jooy buñ la seet see nga bégal leen yaa dégg alxuraan yaa dégg xadis yaa bëgg yonent bi yaa gëm yàlla yaa defar jaam ñi ma la tax ma sopp la ba jox la programme bi bye bye ba nekk waaye waagaan maa ngi dem de sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi sin ma ngay nelaw bu yewoo xalam yi jiin bu yewoo samar yi jiin